1996 nekkoon naa conseil municipal et en 2009 nekk naa adjoint au maire Ce ma jangasi, si lu bari jàng si ne yore collectivité territoriale du question ben nit esprit collectif la esprit de solidarité la djegi askan bi waxtaan ak ñoom bokkandoo xalaat ak identifier projet identifier soxla yi ñu mën ko doxal ku xool Tëngéej nag xam na ne problème yi bari na.

naka la ville bi stratégique surtout à l'entrée et à la sortie de Dakar de rencontrer des problèmes comme ça parce que la gestion participative Nous ko comme mu credo nous ñu question ban format de leadership tay lañ wara am une équipe inclusive une équipe solidaire une équipe équitable efficace efficiente bi nga xamné soklam nous avons des acteurs de base yi quartier pour nous remonter dans des projets pour définir la nouvelle vision en tout cas pour Tëngéej Nous sommes ñu épousés. Ce épouser li nga président de la république son excellence Macky Sall Nous bëgg nag problèmes ko problème yi am intégré si li nga xam plan Sénégal émergent mu se dérouler un peu partout en tout cas si Sénégal si loolu nag lañ ma proposer pour moi que un candidat à la candidature man nangul len ko accepté de façon officielle pour nek candidat à la candidature de la commune de Rufisque-Ouest de la coalition Benno Bokk Yakar pour être un candidat à la mairie de la ville de Rufisque pour indi changement yi nga xamné né ne ñu ni yaakaar nañ ko parce que gëm ville né ville amul territoire territoire moy les communes alal bi ci communes yi la wara dem té pour mettre en œuvre équipe moo koy def

3 3000 à 000 personnes ont fait ça. Nous avons un engagement kilifa jël engagement pour que ñu àndandoo pour dem à cette candidature yaakaar naa le bon choix sera fait par son excellence le président de la République Macky Sall.